déposant sa sa sa démission loolu am na lu muy signifier. mais écoute man je dis l'ambition est naturelle en politique. Mm -hmm. pour moi l'ambition est naturelle les gens sont libres d'avoir des ambitions. maintenant dina toll foo xam ne nii la politique aussi c'est pas un jeu individuel c'est le collectif. Mhm. c'est être au service du collectif. Ouais. Dans le collectif, il faut qu'on mette en avant l'intérêt général, l'intérêt du collectif. Mm-hmm. Je pense que le président l'a dit depuis bien avant sa déclaration du 3 juillet, d'abord à Paris au mois de fin juin, qu'il a dit que le pour l'élection présidentielle pour de 2024 pour la majorité, c'est un défi d'abord d'unité. Mm -hmm. euh, défi d'unité mooy ku nekk fàtte sa bopp. Si dans un projet collectif à la des enjeux mooy ñu fàtte suñu bopp. fàtte sa bopp mooy en un moment ku nekk l'ambition est légitime ku nekk am na ambition mais na ñu xool projet collectif bi lan moo ko mun a jëmale kanam ak kan moo mun a nekk porte euh, drapeau bi et dans le contexte actuel je pense que bu fekkee ne ñun ñëpp dañu wóolu ki ñu jiitaloon ñu topp ko nekk ci gannaawam di ko liggéeyal fukki at ak ñaar ñu ni wóolu nañ ko bu choisir ba pare dañu war a conformer wu à ce choix là maintenant les gens sont libres suivant leur logique mmh. leurs ambitions de faire autre chose que mais en tout cas moi des conséquences pas, moi non moi je dis en fait c'est une question on est dans une situation où c'est une question de responsabilité mhm. individuelle oui. je considère que Aly Ngouille ce qu'il a fait je suis d'accord ou pas d'accord il a été conséquent avec lui-même mhm. s'il mm -hmm. pense qu'il a des ambitions et qu'il ne se voit plus dans le projet euh, d'avenir il, il, ce qu'il a fait. Il est libre de partir. Je il est crois que euh, c'est normal. Maintenant, moi, je dis ce qui est important. Parce mm -hmm. que mhm. c'est une question euh, fi ñu toll nii d'appréciation personnelle. Oui. ku nekk da ngay engagé personne n'est obligé d'être là là dans le projet. Les gens sont libres. euh, d'avoir été avec Macky Sall et de voir autre chose aujourd'hui de dire qu'ils veulent faire autre chose. mais yow loolu noo koy noo koy gisee Abdou Khadre avant parce que am nañu jàpp ne ingratitude la am nañu jàpp ne manque de loyauté la de leur part l'ambition d'accord mais bu ñu choisir keneen ci intérêt collectif bi li gën xëy na mooy nga nangu ko. xalaat li nga xam ne mën nga ko ñàkkal euh, sa coalition par exemple. je vais pas qualifier les postures que je vais faire c'est que moi j'étais avec Macky Sall j'ai dit que je lui ai donné carte blanche que je lui fais confiance parce que wóolu naa ko te xam naa ni mënul tànn woolu ko xam naa ni mënul tànn loo xam ne nii du njëriñu réew mi et donc à part de ce moment une fois que le choix est fait moi je me mobilise je mobilise mes amis je mobilise mes parents je mobilise mes militants je mobilise ñi ma xam ci Sénégal ñëpp ne leen ce choix la c'est le meilleur choix pour l'avenir du pays maintenant euh, li ñeneen ñi di def je ne vais pas le qualifier je pense que là en politique aussi c'est une question de responsabilité individuelle mais il faut que les gens soient conséquents. mais war na am na ko gisee Abdou Khafor. non non non non non je dis l'ambition est naturelle. non je parle là il n'est plus question d'ambition parce que yaa ngi wax sànq. non je le dis, défi de l'unité ak oui, le devoir mais, mais, de préserver li nga xam ne moo leen boole. mais je dis les je dis les gens ils ont le droit de faire autre chose mais l'essentiel. Euh, qu'ils soient conséquents avec eux-mêmes mm-hmm. mais je pense que euh, ambition nu mu naturelle bu ñu demee ba sélection am mm-hmm. je pense que déception mun na am les gens doivent prendre le temps de digérer la situation de faire revenir leurs esprits et de revenir sur les enjeux moi ce que je dis et le message que j'ai à, à dire c'est que le président Macky Sall a été un leader de son temps un grand leader de son temps le président a compris les enjeux le président Macky Sall est un exemple mm -hmm. dans sa façon de conquérir le pouvoir et dans sa façon d'exercer le pouvoir si le président Macky Sall sur le plan politique a tenu une coalition Manier et une large ma ne le président Macky Sall ci 2012 ni mu jëlee nguur ak ni mu yoree nguur gi fukki at ak ñaar mhm. jàpp naa ni coalition bi gën a dëgër gën a yaatu bu suba bu nekk bis bu nekk mu ngi yaatal coalition bi maintenir loolu loolu xam ni réew mi pencoo ak diisoo ak yaatal ak boole ñëpp parce que li ñu yor du yëfu parti bu ñu xasee ba fal la njiitu réew njiitu réew mi yëpp nga. Mhm. du question parti kese nga jiite intérêt réew mi nga war a nga war a jiital loolu moo tax mu ubbi nguuram. ci compétence yëpp un défi que doit maintenant relever Amadou Ba. waaw ba ba pare ba pare ba pare mu def ak. procès yu ñu ko fi defal ak lu ñu ko fi waxal ak lu ñu ko fi sosal mais nit jëfam nit jëf ji mooy liggéeyal na Sénégal bàyyi na Sénégal bilan et la mu sàkkoon la mu saafoo di diggante woon ak sénégalais yi def na ko ba mu mat sëkk mhm. mu dem di fi jóge euh, ne woon du ma dem su ma paree su ma ñaareel mandat damay dem di dem ne su ma camp su ma sañoon su ngeen ma dégloo su ngeen ma dégloo ngeen topp ma dinaa leen teg ci yoon boo xam ne nii dangeen di gagné et je pense que ci yoon boobu lay.